voilà euh, yéen ñu ñuy seetaan si Sénégal 7 point com ñu ngi ak euh, yéen ba tey euh, fii si permanence bu Mbacké ngeen gis noonu li nga xam tey moom mooy patriotes yi voilà patriotes yi en attendant ñu mën a réparer suñu micro rek parce que dañoo xaw am problème technique un peu voilà ñu mën leen a mën leen a mën leen a décriral par rapport ak li nga xamante ni moom mooy Euh, moom mooy askan wi nga xamante ni euh, jamono ji ñu ngi fii euh, si voilà si permanence bi yéen a ngi seen noonu li nga xam rek ñoom ñoo di patriotes yi yi ñëw nañ fii voilà grand maa ngi lay nuyu voilà boo mënee yox kàddu gi tuuti rek yaa ngi en rek si sénégal 7 point com alors tey ngeen ñëw ñëw si buntu siège bi alors gis nañ dispositif bu impressionnant un peu partout si Mbacké ñu gis ay policiers taxaw foofu yéen tey jii lan moo nekk seen seen asalaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal yi. voilà yokkal kàddu gi tuuti rek. maa ngi nuyu yëpp. voilà ñu ngi nuyu teew. dëgg yàlla gis nañ seen taxaw bu baax gis nañ seen taxawaay bu baax a baax. waaye nag euh, dañuy jéem a jaay doole. mais nag ñun ñun waa Touba ak Mbacké danañ ko saafara suñu bopp. président Ousmane Sonko dafa doon koo xam ne dëgg yàlla ñëpp xam na ne day xeexal Sénégal di xeexal askan bi fii ñun damay woo ñëpp nañ ko gàttan teeru ko te xam na ne jaay doole ji daf dafa war a jeex ndax ressource bi ñuy tag dañuy métti trop léegi loolu li koy mën a saafar mooy ñun askan wi ñoo ko mën a saafara ndax loolu daf ñuy def. alors yéen fan ngeen fan ngeen fas yéene dem nii. waaw ñun nag danoo bëgg Gatineau Seydina Ousmane. waaw ah. léegi bu Gatineau léegi mu fexe mu dem gars yi ñu wax ne day julli. waaw ah. léegi bu jullee ñu a mag ñëpp. d'accord si loolu lañ nekk. si loolu lañ nekk moo tax. Issa ku bëgg a ñëw si seesu seesu pësëb garage bu bees la ñu fi ñëpp ñëw. garage bu bees waaw garage bu bees la. d'accord waaw yow maa ngi lay gis ngeen def seen mobilisation. Euh, ma bàyyi la nga wax ji lan ngeen fas yéene nar. waaw tey li ñu fas yéene def mooy teeru mu sell bi xaar ko ñoo ñu ànd ak moom wër ak moom biir dëkk bi mbooloo mi génn ñu wax li ñu dañoo bëgg a ni ko gassa gassa gi Ousmane Sonko di wax tey jii lay commencé Mbàkke di ko mars jii la commencé woon bi la gassa gassa gi di commencé ñun dem nañ suñu testament ba pare ñun ñaari doom la ñu am ak benn terrain jox nañ ko suñuy doom fii ku jur sa yaay jur ñun pare nañ suñ bakkan bi tare nañ ko Ousmane Sonko ba pare lu lu lu ko jar rek jaral nañu ko moo fi ne asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw waaw waaw. waa Sénégal set ñu ngi leen nuyu bu baax ñun Louga lañ jugee démb lañ finance démb lañ finance li tax ñu def ko nag du dara lu dul bëgg suñu réew du dara aussi lu dul bëgg li nga xam ne si mooy projet bi Ousmane Sonko indi ngir Sénégal ngir Sénégal développé ngir Sénégal jóge si ndóol ngir senegal jóge injustice ngir senegal li ñu moom si alal ñu moom ko suñu bopp kooku dañoo pare dañoo pare si côté yëpp. président Macky Sall benn ak nguuram ak ñi mu àndal ñun sénégalais yi nga xam ne ñooy dund ndóol ñooy dund si coono ñun pare nañu fukk ba ñaar fukk lépp lu mu laaj. lépp lu mu laaj te joxe sa bakkan moo si doole ñum dañ koo pare ba pare. on n'a plus rien à perdre bu fekkee Macky Sall daa bëgg gat sa gat seg incha allah dana si am ba sëkk te fii lay commencé. alors alors alors ñu gis fépp foo romb si mbedd Mbacké yi. dafa euh, tapet dafa ragal. moo tax mu indi ay dispositions militaires pour dissuader. nit ki soo jiitee sa nguur ñu dellu la sunu alal dellu la sunu milite dellu la sunu armée danga koo war a utiliser pour protéger la population mais pas pour jëm xoqatal loolu lépp day war ne waa ji rek c'est un koo xam dañ ko dañ ko dañ ko dominer sur le plan politique dominer ko sur le plan des idées dominer ko sur le plan vision léegi li mu am mooy xoqatal te loolu du jaal donc ñun nous sommes prêts à faire face à cette incha allah jaajëf kilifa gi maa ngi lay ziar ma baale yow tamit euh, sa kaddu par rapport ak bésu tay bi euh, ginnaaw ba ñu interdire cette manifestation bi ñoom regroupé wu ci seen siège bu euh, lan moo nekk sa réaction. ni ko sama naata nga waxee Abass rek la wax. Ah. ñun ñun ngoon kenn mënuñoo tee dugg Mbàkke interdire nañ ma meeting mais dinañ gis loroo meeting ndax ndax dinañ dem boulevard Ndoyeen bi ñu wax danañ fa dem amul lenn ñu fa téeméer Macky Sall fii mu ñu woo danañ ko wuyu. bu bëggee jàmm comme ni ko président di wax bu bëggee jàmm dina am jàmm bu bëggee leneen dina ko am lu mu ñëw duñ pare nañ ci lépp nañu projet bi duñ ko liggéey ba mu toll fii di ko segg Macky Sall di ko di ko yàkkal Macky Sall lu mu bëgg dañ cee dem ak moom tey fii ngoon tey lu bëgg dañ cee dem moom bay moom andi alkaati lu mu am lu mu lëloo ne bay moom andi mais mënuñu wote mu ah, a ngi gis ah, ah, bi mu nekk na xaaral ma mën a arrière tuuti pour wan leen Euh, ñi nga xamante ni jamono ji euh, ñëw nañ fi voilà yéen a ngi gis noonu euh, mbooloo bi nga xamante ni moo ñëw fii ci buntu permanence Pastef Touba ngeen koy seen noonu voilà ngeen di seen noonu permanence Pastef Touba patriote yi yéen a ngi voilà yéen a gis noonu borom drapeau bi. jamono ji nga xamante ni dañoo interdire manifestation bi euh, ma jéem a jël borom drapeau bi en direct rek alors maa ngi lay ziar voilà maa ngi mu ngi noonu ñu fas yéene yéen ngi gis noonu mu ngi daw ak drapeau bi alors maa ngi lay ziar yaa ngi en yaa ngi en direct ci Sénégal pare nañ pour tout. Ah, gasa gasa jeex na tàkk. alors amatul maye. alors nan nan ngeen nan ngeen gisee tey dispositif bi parce que tey fépp koo romb rek. Euh, fépp koo am na am na ay dispositif yu si mel ni. pare nañ pour tout voilà. lii joxe nañ ko ba pare grand. Mhm. gasa gasa wax ji c'est point gasa gasa loolu rek moo fi des. jaajëf ah! kon yéen a ko tey euh, ngeen dégg li nga xamante ni euh, jamono ji euh, moom mooy kàddu yi nga xamante ni koy yëkkati dèjà maa ngi ak ñaari patriote gaa yaa ngi lay seetaan en direct ci sénégal 7 point com ma bàyyi la nga wax sa première réaction par rapport ak interdiction de votre manifestation prévue aujourd'hui lan moo nekk sa xalaat loolu waaw sama xalaat de mooy ñu taxaw rek mobilisé wu teeru président Ousmane Sonko mu sell mi te xam ne bëgg a lu metti la hmm. parce que ñun fii Sénégal moom ñoo ko bokk Sénégal benn la kenn mënu koo xar ñaar kon nag bu ñu nekkee war a def euh, leader war fee ñëw ñu ne loolu du fi amee loolu ñu métti la ñu koy naqarlu ba fa naqar yem wax dëgg yàlla daal mais nag nan ñëpp mobilisé wu rek comme ni ñu ko doxalee rek incha allah ñu teeru ko ànd ak moom li mu bëgg a def lépp ñu def ko ci kàttanu yàlla ak baaxam baax na jërëjëf. d'accord jërëjëf alors ku baax maa rek. man moom bu ma jawelee joxe bakkan bi sax ma joxe bakkan bi Ousmane Sonko ca kaw rek. waaw lu ne waaw. mais policiers yi dañu leen a mobiliser partout moom loolu moom jaaxal. mais ñun loolu yëpp jaaxaluñu yooyu yëpp jaaxaluñu lu mu laaj la ñu def ko ba mu jeex. d'accord euh, grand maa ngi lay ziar fan nga jugee yow ñëw bi. man maa ngi jugee Dakar ma ñëw Dakar laa jugee. waaw Dakar nga jugee. waaw ah, Dakar laa jugee ñëw ñëw tey ci manifestation bi. dafay manifestation bi waaw. waaw ah, président moom jaral nañu lu ne. droit de yow am na lu ñu tuddee. jaral nañu lu ne jaral nañu ko. d'accord kon tey jii bu ñëwee fii loolu moom moo tax ñu ñëw fii maanaam lépp lu laa laaj nag dinañ ko def pare lépp lépp lu mu laaj nag pare nañ ko def incha allah jërëjëf incha allah voilà mu ngi noonu ba tey ñu ngi ànd ak yéen euh, jamono ji euh, fii si euh, permanence bi voilà si permanence bi yéen a ngi gis noonu ñi nga xamante ni ñoom ñooy les patriotes instant yi nag ñëw nañ kenn ku si nekk yaa ngi jënd sa t yaa ngi jënd sa t ñëw voilà yéen ngi yan nga gis noonu yan nga gis noonu ñi nga xamante ñoom ñoo di voilà les partenaires Sonko maa ngi lay ziar kilifa yi alors euh, yow fan nga jógee ñoo fi tey. Dakar laa jógee Dakar. da ngaa fanaan si wala da ngaa xëy ñëw. non léegi laa ñëw nii. d' accord waaw alors yéen tey ñëw ngeen alors que bi interdit nañ ko euh, ñu gis policiers yi fépp ñu daal di leen koy teg euh, lan moo nekk tey seen plan d' action. mais du yoon c' est nangu. mais interdit loo xam ne du yoon. loo xam ne du yoon. yoon ñàkk ñàkk yoon rek moo koy dox taxaw rek taxawal dëggal suñu bopp victoire rek incha allah. d' accord waaw noonu. Euh, alors yéen a ngi ànd ak ñun ba tey ñu jéem a approché un euh, am na si ay jigéen yoo xamante ni ñoom tamit ñëw nañ ngeen gis leen noonu ñu sol li nga xamante ni euh, moom mooy seen i voilà. salaamaaleykum na ngeen def alors si yaa ngi en direct jamono ji si Sénégal 7 point com euh, tey ngeen am taxawaay euh, fii si permanence bi par rapport ak interdiction manifestation bi yan lan nan ngeen ko gisee. ah ñu de pour ñun sax kenn interdit ko ñun mu toll nii fañ nekkoon fa lañ nekkaat tey meeting par force waaw. Sénégal ñoo ko bokk bàyyi kenn moomu ko yaay kenn moomu ko niñ ci amee wàll ba nekk Thiès di lambar lambay dem fu leen neex ñun tamit noonu lañu amee droit nekk nekk Mbacké def lu saf wax d'accord euh, ji lan moo nekk seen taxawaay ci bés bi tey daal suñ taxawaay ci bés bi mooy ah. dañuy xeex loolu mooy wax parce que dañ ñoo woo xeex xeex nag buñ la ci woowee foo jaar da parce que Macky Sall daf ñoo jàpp di ñu sës di ñu sës ba sës ñu ci miir xam nga nit boo ko jàppee di ko sës di ko def ci injustice di ko teg lu ko naqari di ko teg ay naqar muy muñ lu muñ lépp mooy que moom xam ne population bi ànd nañoo ak moom ànd lu mu muñ muñ nag mooy que moom xam na ne lu ciy metti ak lu ciy neex lépp ci moom lay doon ndax lu neex li moom la lu metti li moom ndax ay nitam la ñuy jàpp di tëj ay ay ay partisans la ñuy jàpp di tëj di rey kon loolu ci moom mais li ci neex moom mooy àdduna bépp ànd nañoo moom jeunesse bi ànd nañoo moom mag ñi ànd ak moom jigéen ñi ànd ak moom ñun nag ñoo ngi si ginnaaw tey xeex bi bu fekkee fii la war a commencé nañ ko déclenché parce que xeex mënul ñàkk. chaque jour dama leen doon wax xeex mënul ñàkk il faut ñu xeex comme xeex mënul ñàkk nag nañ ko commencé ndax dañoo yeex a sax xeex 2022 bi lañ ko waroon a déparé xeex bi ñu mën a def suñuy campagne. alors mais da a préparé pour ànd ak euh, seen président Ousmane Sonko pour dem fan ak fan da ngeen a ñoo ngi koy xaar xoolal moom bu nee wow na nee nañ ko wow na bu nee nooy na nee nañ ko nooy na lu wax bu dee ñuul na nee nañ ko. moom lu wax rek ci loolu ànd ñoo ngi taxaw nag di ko xaar bu ñëwee fu ñu jëmale foofu la ñuy dem xam nga bisu dund du bisu dee fii ñëpp def seen testament ndax xam nañu Macky Sall ku jàkkaarloo moom da ngay dund wala nga dee te teewul ñoo ngi ni démb ay lakk ramadan lañ ñu doon dóor bàkke jàpp suñu leader tëj jàpp suñu ñaari leader tëj mais tey bu ñu taxawul woon volonté kon duñ leen génne mais ñun dañoo taxaw dañoo taxaw ne ñun dañu dañuy génne suñuy leader wala duñu ñibbi fa lañ nekk ba ay minuit fa ñu fekk ñu soog leen a génne ñu soog a dem ñibbi kon xeex boobu dañ koy continuer te dina xam ne waa Touba la koy defanteel ñun du ñu daw yootaa amuñu lu ñuy daw ragaluñu kenn dafa am loo xam ne nag dinañ moytu danañ moytu mais ragaluñu moytu ak ragal dafa bokkul mais nit doo ko jàpp di ko sës di ko def injustice lu métti àdduna bépp di ko wax. waaw mais ak ko bëggoon sax bàyyi nañ ko ñëw ànd ak ñoom. d' accord alors fépp koo romb si Mbacke gis nañu ay dispositifs ñoo xam ñun loolu ndax jàpp ne combat boobu également du nekk lu yee fitna. ko. ñun suñu yoon nekku ci gisuñu leen sax. ndax bu fekkoon gis nañ leen duñ ñëw taxaw fii wala buñ leen gisoon duñ ñëw taxaw fii te ñoo ngi ñëw taxaw fii kon ñun xooluñu leen parce que ñoom suñuy frère lañu ñii suñuy mag lañu ñii suñuy rakk lañu xam nga ñii ñoo bokk lépp ñii ñoo leen jur kon suñ mënee jàpp seen yaay seen frère di jàpp seen i mbokk di leen dóor nañ ko def mais ñun du tax ñu reculer seule la lutte fii boo xeexut ñu libéré suñu bopp fii ñu fi mas a xeex ñoo libéré seen bopp fii ku fi dëkk bu fi baax xeex nga dëkk bu fi baax xeex nga mais bu ñu xeexul nag duñu libéré wu ba ala yoomi diin dootuñu libéré gis nga bii combat bu ñu rawee bii combat bu ñu rawee bu yeboo ku nekk nga génn dem sa yoon te xam ne pare nañ Sénégal pare na alors jërëjëf mu ngi noonu ñu ngi ànd ak suñu benn maman euh, bi nga xamante ni euh, moom it dafa ñëwoon euh, tay jii rek ngir mën a àttu si mbir mi yéen a ngi gis noonu Sonko 2024 Garsa Garsa voilà ñu jël ko alors grand tournel yaa ngi ànd rek Sénégal 7 point com yow it nga bind Garsa Garsa gi tay jii ban taxawaay nga am présenté wul nga wax fan nga jógee ñëw fi tey waaw man maa ngi tudd Ismaïla. ah euh, dëkk Touba. représenté comme Pastef Italie Bologna. dama waroon a ñibbi waaye meeting bi moo fi indi li ñu bëgg mooy Macky Sall maanaam li nga xam ne tey ah, élimination bi mu bëgg def président Sonko moo dugg jàll ndax Macky mu mi ngi woon Thiès mi ngi ci réew mi fu neex mu dem bëgg a téye président Sonko ne du génn réew mi loolu moo mënta nekk fii nag Touba la waaw. ñoo ngi fi ñu ngi koy xaar ndigal li la ñuy xaar. ñu pare nañ gis nañ déclaration Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni euh, wax na ne euh, àndul ci manifestation yi maanaam mobilisation bi ñu nar a amal Touba Mbacké euh, loolu en tant que ndaw patriote yi dëkk Touba fi naka ngeen koy naka ngeen koy interprété. waaw Serigne Modou Kara moom kilifa ah. waaw léegi nag kenn ku nekk am nga droit wax li nga bëgg ak ni nga ko sañee. moom na wax li mu bëgg rek waaye ñun projet bi jaral nañu te ñun li a nañ ko te fi mu ko dinañ bàyyee ko. waaw man euh, Mor Diop laa tudd. Euh, Touba Pastef bu Sobe nekk responsable Serigne Sow voilà. alors tey jii euh, manifestation bi ñu annulé ko par rapport ak li ngeen tumboon tey si àjjuma ji naka nga ko dundee. waaw lu ñu ñaawlu la parce que Sénégal jàpp naa ne actuellement waroon na dépasser ci côté démocratie ndax Sénégal réew la boo xam ne nii. ñu Sénégal réew la boo xam ne nii dëkk ñi nga xam ne nii moom moo ñu moom yi ñu daan wax ci wàllu démocratie bëri na kon tey suñu dikkee ba toll si jamono ji muy en 2023 mu tor ni opposition bi dañ leen ki xam ne nii muy seen leader di président Ousmane Sonko euh, euh, organiser benn meeting fii au niveau du département de Mbacké Macky Sall euh, ragal bu mu ragal adversaire politique am tax mu annulé meeting boobu noonu jaarale ko ci li ñuy wax administration locale muy préfet donc loolu dañ koy ñaawlu di ko naqarlu bu baax a baax a baax ndax Sénégal démocratie Sénégal bu dellu ginnaaw lañ ci lañ ci jàngatee quoi. d' accord alors mu ngi noonu jërëjëf ñu ngi lay gërëm ba tey euh, ñu ànd ak ba tey patriote yi euh, fii si euh, permanence bu Pastef grand maa ngi lay nuyu. ça ça va grand maa lay fay. jaajëf allez allez-y. waaw yaa ngi ci jàmm ñu ngi bu baax dem mbégte en tant que en tant responsable maa ngi jóge Samb Tamba Ba rek responsable foofu ñu waajal mbir bi waajal ko nu ne mais xam nga rek suñu waa ji nga xam ne moom tapet la bu xet ni ñemewul yaa ngi dégg xam ne benn instant bi bi arrangé ko ñu dem ñu jabilise bëgg ñu yàqal suñu mais du tax ñu dellu ci ginnaaw yaakaar diñu amoon ak gëm-gëm bi ñu amoon tey la yokk kii sama xarit la moo ngi na dellu tey jii mais lii moo tax mu toog ngir perte biem ngir Sénégal ñor bu ko ñor mais na nga xam ne suñu bakkan yi lañu joxe bëggatuñu ci dara ma Sall dañuy may jàmm ci nii wala mu may ñu ko ci naa amul ko perte ñu la ñu ci dellu ginnaaw d'accord jërëjëf voilà mu ngi noonu ba tey ñu ngi ànd ak yéen si euh, direct bi euh, grand maa ngi lay ziar voilà mu ngi noonu ñu ngi euh, yéen a ngi gis noonu bi nga xamante ne moom drapeau bi la maa ngi ziar yow dépp dem ba tey yaa ngi woon si terrain bi tey maa ngi la fekkaat si permanence bi ma bàyyi la nga nuyoo rek présenté waat wax tey ji ban taxawaay Sénégal 7 TV waaw maa ngi jógee ba di wax au nom de la coordination des jeunes patriotiques du centre du Sénégal. maanaam moo regroupé Diourbel Fatick ak Kaolack ak Kaffrine. ñun dañoo ñëw fii tey ànd ak suñuy waa Mbacké avec Saliou le coordinateur de de GPS Mbacké pour dooleel leen ci teeru bi ñu war a teeru Ousmane Sonko. meeting bi nga xam ne dañu ko aaye démb ba léegi. nekkul loo xam ne dëgg la teguñ ko si yoon teguñ ko si lenn loo xam ne lu dul jaay doole jaay doole boobu nag il est temps que mu dakk dafa jot pour mu dakk te pour mu dakk lu mel nii ñun jeunesse Sénégal ñoo ko mën a dindi Macky Sall dafa doy dañoo doyal si moom sëkk dañoo si ko Macky nañu abal Ousmane Sonko day ñëw tey ñu encadré ko ànd ak moom def suñu meeting ba mu saf sàpp ku nekk delluwaat fa nga jóge woon forfaiture bi dafa doy dañoo sonn dañoo tay dañoo daay les les les les autorités les autorités administratives nañu xam ne ba ñuy prêter serment Macky Sall nekk fa woon dañoo prêter woon serment ngir servir le Sénégal dignement suñu demee ba xam ne mënatuñoo servir Sénégal ils n'ont qu'à démissionner avec dignité Sénégal nekkul dëkk boo xam ne dañ koy tayle di ko di ko di ko jébbal tubaab yi dañoo sonn dañoo tay dañoo damm si gaay yi fu mu nekk nii nag lépp luñ si bañul ñun bañu ko par rapport ak euh, dispositif sécuritaire bi naka nga ko gisee dispositif sécuritaire ah. gis nañ leen ñoo ngi fi sax ñun lijjante wuñ une mission on est là pour une mission suñu mission soit on remplit notre mission soit on la trahit et on n'est pas prêt à trahir notre mission suñu mission dañ koy remplir dignement fidèlement ba ñëpp xam ne lii ce n'était ce n'est plus Ousmane Sonko ça dépasse Ousmane Sonko on s'est levé pour libérer le Sénégal et on le fera inchallah personne n'y peut rien qu'il ou qu'il neige on, on, on accédera à la souveraineté nationale. on n'y peut rien en 2024 Ousmane Sonko kii deviendra président de ce pays. jaajëf man ñu ngi ànd ak patriote yi alors ma bàyyi la nga présenté wu yow fan nga jógee ñëw. Cheikh Diouf la depuis Kaolack. voilà Cheikh Diouf la depuis Kaolack ñun on est venu depuis hier euh, vers 11h. waaw waaw fi la ñëw avec installation bi après ñu dem caravane ñëw bu euh, ñu wax leen benn affaire kilifa gi fi newoon démb mooy sëñ Cheikh. moo tax ñu bàyyi ñii ñu dindi matériel mais bu nekkutoon nag loolu matériel boobu sax du dañ. ñun ñu jugee Kaolack kon ñun am na lu ñu jaral li nit ñi war a xam mooy mbir mi daa dépassé Ousmane Sonko wala lenn gis nga Ousmane Sonko bu ñu rawee ñun ñii bu ñu paree ku nekk na uti beneen nationalité fii ba cent ans duñ amaat ku mel ni Ousmane ñu waxoon a dee moo fi ne ñu bëgg ko ñu bañ ko moo fi nekk dañuy xeex nag ba dee ñu soxlaat dara suñu àdduna dara lenn mooy lenn lañ soxla mooy ñu jël ko teg ko ci bopp réew mi mu liggéey réew mi ñun ñëpp ñu gis suñu bopp à part ça moom soxlawuñ leneen leneen nag lu gars yi foog nañ ñun dañoo ragal ñun ragaluñ dara parce que ñun amul lu ñuy sox amul ñun amuñ dara ñun amuñ dara soxlawuñ dara lenn lañ soxla mooy jël président Ousmane Sonko teg ko ci bopp réew mi sénégalais bu nekk gis sa bopp ci réew mi au delà de bu fekkente ne dañoo bëgg comment dire yegg ci président nañ leer ne ay nit yi nit yi nit pour yegg ci foofu noonu te ñun suñu bakkan leen ko tayle bu dee daal laaj xeex dañuy xeex ak ñoom ba dee. wallaay wallaay affaire yi amatul nekk fii di layam layam yi wala ñu nekk fii nii di amuñu xalaat xalaatuñ dara barki maam Cheikh Fall dañuy xeex ak ñoom ba faatu waaw waaw loolu kese parce que fu mu toll nii jàpp nañ ni ñooñu moom te moomuñu hmm. réew mi muy Macky Sall muy keneen ak keneen ñoo ci yem dañ koo dénk bu pare day abal réew mu jox keneen euh, comme ni waa ji wax nag sànq les autorités euh, administratives nañ xam benn affaire président Senghor moo fi nekkoon avant bu ñu nekkee dafa dem keneen ñëw ñoom ñu toog ki fi ñëw aussi day dem man bu ma di tudd turam sax jombox biram bu rëy boobu noonu bu ma sax di tudd turam moom jombox na xam ne benn affaire mooy réew doon doonu si baayam doon ko si maamam doonu ko si kenn d'accord moomu voilà d' accord jërëjëf jàmbaar maa ngi lay yow tamit euh, ma bàyyi la nga présenté wu wax fan nga jógee euh, ñu ngi lay seetaan jamono ji entre direct ci sénégal 7 point com waaw euh, maa ngi leen di leen ziar di wax ne man la Saliou Ndiaye di coordonnateur JBS Mbacké mhm. mooy la jeunesse qui compose le département de Mbacké di wax ne nag tey li ñu indi fii mooy lan accompagner suñu leader mhm. ah fas yéene def benn mobilisation bu am solo autour de notre président Ousmane Sonko bu ngeen gisee lii lépp li ko waral nag jeunesse bi ñëw wuyu si te ñii ñëw ñoo ëpp doole moo di jaay doole gi dafa dafa dafa doy ndax lii préfet Mbacké def ñëpp séntu woon nañ ko fa ba mu des ci préfet de Mbacké mu ñëw di di di di ay ordres yoo xam ne ci kaw la jóge des ordres yoo xam ne c'est illégal ndax suñ manifestation dañ ko waroon amal mais dañu koy amal ba léegi boo ba léegi nag ñoo ngi masa masla masla masla bi nag dañ ne dafa doy ndax lu ëpp tuuru lu ëpp tuuru lañ wax de jeunesse bi ñoo ngi nii la jeunesse de Sénégal est là la jeunesse de Kaffrine est la jeunesse de Kaolack jeunesse yi yëpp yeneen département yi démb lañ ñëw fanaan si pare nag tey pour joxe suñu bakkan pour le président Ousmane Sonko. d'accord yow en tant que coordinateur euh, jeunesse patriotique du Sénégal fii si Mbacké mën nañoo xam coordination yi nga xam ne bàyyeeku nañ euh, fépp si Sénégal mën ñëw fi actuellement. waaw boo xoolee. coordination yu bëri ñëw nañ am na coordination yi déjà yoo xam ne ñëw nañ démb. lu mel ne Fatick ñëw nañ démb son coordinateur la coordina sa euh, coordinateur est muy la coordination départementale de euh, Fatick. ku mën doo fenn y a aussi la coordination de Kaolack teew nañ. Mm-hmm. la coordination de Kër Massar la coordination de Diourbel la coordination Dakar. presque toutes les coordinations qui composent euh, euh, le, le pays est représentée surtout la la la la zone centre. ñoom ñëpp nag ñëw nañ tey jii def euh, bouclier autour du président Ousmane Sonko wax ne lii ñu bëgg a jaay euh, suñ président wala lii ñu bëgg a teg suñ président. duñ ko nangu tey nag dinañ amal suñ mobilisation incha allah ni mu waree dinañ def suñ caravane dinañ def méga meeting réew mi nag kenn moomu ko indi nañ dispositif sécuritaire yoo xam ne kenn mënul koo natt mais nag ñun loolu faalewuñ ko faalewuñ ko yëngaluñu ko on va faire face on va se battre pour libérer ce pays parce que dafa doy nag. d' accord ñu ngi lay nuyu ba tey yow it nga bokk si ñu jugee euh, euh, voilà présenté nga fan nga bàyyeekoo ñoom. maa ngi nuyu presse bi yëpp di nuyu bi. d' accord euh, Seck Mbando d' accord ñi ñëw fi démb fas yéene jàmmarloo ak ki nga xamante ne mooy le dictateur parce que man dictateur laa ko mën a tuddee muy Macky Sall c' est un fils de Fatick nous sommes de Fatick et on l'a on lui a inculqué des valeurs yoo xamante ne vraiment du lii lañ doon xaar si moom mais Fatick nag fidèle à ses valeurs lii fera face et lii fera face à toute tentative de liquidation ou bien en tout cas de d' envers son son léegi nag li ñu fi tax a ñëw xam ngeen ko comme man lan la président Sonko dafa ne dafay nemeeku mbokkam yi dafay def méga meeting ak mu ne du pour pourquoi parce que Sénégal dafa jàpp ne mooy mooy buur mooy buur mooy bumi du ko neex def non loolu ñu ne du ci dal bu fekkee dafa pare pour en tout cas liquider le président Ousmane Sonko pour empêcher ko mu doon candidat en 2024 ñun pare nañ tamit pour ne ko loolu noonu du am on est prêt à donner notre vie pare nañ loolu noonu président Sonko nag du ñu gën a gore parce que daa am lu ñu wax nee nañu ñoom dénk na gannaaw yàlla dénk na boppam ndaw ñi na jàpp ne ñun tamit gannaaw yàlla nañ ko téye bu baax a baax gannaaw yàlla bi nga xamante ne moo ko gën a moo ko mën a aar ñun tamit nañ ko aar ci lépp lu ñu mën bu jëree ñu joxe suñu bàkkan war nañ ko joxe suñu bàkkan. loolu moo ñu fi tax a jóg kon di leen remercier yéen presse bi tamit si rafetlu seen liggéey vraiment on est de vous lii la ñuy xaar ci presse mais pas une presse boo xamante ne il est corrompu ça le dis c' est pas toute la presse qui est comme ça mais am na presse yoo xamante ñoo ngi def liggéey comme le Sénégal set comme Walfadjri ak ñeneen ak ñeneen kon di leen remercier bu baax a baax di leen jox rendez vous incha allah jërëjëf ñu ànd ak yéen ba tey si magi passé fii euh, si biir euh, déclaration euh,